billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin nabil amin wa ala alihi wa ashaabihi al akramin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din wa ridwanullahi al akbar ala cheikhina wa xudwatina wa wasilatina ila rabbina ahmad ibni muhammad ibni habibillah mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen balu àq di leen baal àq di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu boole ñu jéggal e, ñëw àndak ak yéen rek ci jataay bu tedd bi e, nga xam ne bokk na ci jataay yi ñuy waajale bis bi nga xam ne ci la yàlla baaxe woon àddina yoonu sell wii di liggéey bu tedd bi Cheikhul Khadim indi mu di yoonu murit mu wara nekk ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci koor gi waaye tey bokk ci jataay yi ñu koy waajale fas yéene waxtaane rekk euh, cëru jigéen ci wooteb Cheikhul Khadim euh, sëriñ Tuubaa radiallahu anhu ñëpp xam nañu ne bi mu ñëwee àdduna dañ koy mën a limaale ci ñu sunu borom subhanahu wa taala di wax ne walladina jahadu fiina la nahdiyannahum subulana wa inna allaha la maal muhsinin euh, aaya boobu nga xam ne yàlla def ci wax ne ñi góorgóorlu ci nun yàlla ak sunuy bëgg-bëgg ñun yàlla ñoo leen di jubal sunu yoon ñoo leen di jëmloo fi nu bëgg ko fa jëm sëñ bi dafa ñëw rekk xam loolu daldi taxaw tem ci ay góorgóorloom ak ay yitteem lépp mu def ko ci jëm ci yàlla def ko ci yoonu yàlla def ko ci am yàlla euh, loolu nag li tax mu man ko dafay fekk ñu ko laltaayaloon loolu am nay laltaay yu dëgër yu tax mu mën a rekk rek dëgmal yàlla ndax fekkut lu dul yàlla xamut lu dul yàlla boo ko dee xool dangay gis ne ñaari waajuram yi ko yàlla jaarale ci sunu borom rek lañuy mas di xëy di ci gont muy maam Mor Anta Sali ak soxna jaaratullaahi Mariam waaye it maamam ju tedd ji nga xam ne mën nañ ne ci ñi bokk ci yaram la bokk soxna Aysatu Waalo Mbàkke ku ci am cër la waaye ku teeloo na jëm ci yàlla la itam te sonnal yàlla lool itam xam naa dinañ ci ñëw ci kanam loolu tax mu ñëw fekk ci laltaay jooju mu daldi di sóobu ca yoon woowee nangul yàlla lu ne yàlla jaral ko lu ne ba mu xëy sunu boroom daldi koy sas nag liggéey bu toll ne yoon woowu mu jaar ba agsi fi mu egsi na ci woo ñeneen te boole leen ci ndigal loolu ko yàlla digal mu ko jaarale ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa la yàlla jox ndigal mu jox sëriñ Tuubaa ndigal ci mu woote liggéey bi mu nekk mu boole ci nit ñi ko yàlla boole moo tax moom sëriñ bi ci boppam da dégg mu koy wax sax ne wa min ajaibi bni abdillahi salla alayhi bi salaamillahi baaqin adaa ardahu bi lawliya ilal qiyaamati wa kullun waliya sunnatahu wa saanaha an tabshiruhu xadimahu bi fasdaci nee na bokk na ci kéemtaani sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla dolli ko xéewal ak mucc yàlla mi nga xam ne moo leeral suufam si ci ay wàll yu ba yowmal xiyaam toujours ay wàll yu di fi nekk mu ne moo digal yonent bi ne ko na bégal ki koy liggéeyal mais Serigne Touba ci ne ko fas daan fas daan nag aaya boo xam ne la yàlla sunu boroom moo ko waxoon yonent bi sallallahu alayhi ca woote ba ba muy woote ci suuf lislaam ba dem diir yàlla digal ko ne ne yëkkati woote bi te yaatal ko ne ko fasda' bimaa tu'maru wa a'rid 'anil jaahiliin wala wa a'rid 'anil mushrikiin yonent bi sallallahu alayhi wax joojee la ko yàlla digal mu delloo sil ko Sëriñ Tuubaa ne ko fasda' bi mu ko ko diggalee it daf ko boole wax ju am solo joo xam ne kum fekkul woon nga am yitte deesu la ko wax waaye kum fekkoon nga am yitte it buñ la ko waxee danga nga dolli yitte wax jooju mooy rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat eh, yenn riwaay yi boolewuñ ci kalimatu faqat waaye dañ wax ne rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars eh, muy yaral ñi nga àndal ci itte kuñ fekkul nga am yitte kenn du la wax yaral ñi nga àndal ci itte waaye buñ la fekkee nga am yitte bañ wax la ko it ngir nga yar leen ci danga yokkaat sa yitte moo tax Sëriñ Tuubaa wax jooju da ko soññ wax jooju da ko dolliwaat pëstéef mu taxaw temm nag ci woote te yéene nit ñépp wuy ci woote bi ndax nit ñépp mën a mucc mu waxe leen ko ni ko ko yàlla digale waaye boole ci yërmande boole ci am pas-pasu dimbali nit ñi boole ci yéene leen yi woow loolu tax mu daj ci lu ne nag waaye ci biir woote boobu woone ci góor woo ci jigéen woo ci mag woo ci ndaw xamoon na ni àddina bi faw góor ak jigéen ñooy jàppoo yor ko faw it góor ak jigéen ñooy ànd defar ko nekk fi xalifatullahi fil ardi nim leen ko digale loolu tax ñoom ñaar ñëpp la boole ca woote ba waaye it ñoom ñaar ñëpp a ko wuy si suñ jubaa nim ame woon jàmbaar yu góor noonu la amee it ay jàmbaar yu jigéen wax naa sànq ne dañ ko laltaayal te ci biir laltaayalam googu lu ci ëpp ay jigéen ñoo ko def suñ tuddoon ne soxna Aysatu Waalo Mbàkke mi di maamam alxuraan rek la mas di liggéeye di ci xëy di ci gont borom këram bàyyi fi daara ju rëy mu daal di koy féetewoo yoral ko boppam am ci njàmbaar gu toll ni mujj na day soloo ni góor ñi di soloo ngir rekk gën a mën a yokk yitte ba boroom xam-xam yu baree bari ci réew mi génne ci daaraam jooje bu ñu waxee ne ku mel ni ki sëriñ bu soobe di doomam moom ci ñi ko jàngal la bokk loolu dana doy waaye bu waxee ne soxna jaaratullaahi mariama bu sa it moom ci ñu ko jàngal la bokk loolu dana doy kon kooku bu dee mooy maamam mën nañ wax ne ab laltaay la ci moom waaye soxna jaaratullaahi mi di waajuramu jigéen itam xam-xam moom dafa jaxasoo ci dundam ba jeex ci boo tàmbalee ci alquran ni mu ko doon def waaye teg ci ulum diiniya al ulumu diiniya mën nga ni fiq mën nga ne tawxid mën nga ne mu tasawuf ak lépp lu mu laaj ci xam-xam waaye mën nga ne ilmu lugal arabiya te ah, lugal arabiya muy làkku arab buñ ko dee limaale ci xam-xam yu am solo yi ci lislaam li ko waral mooy alquran dafa wàcc ci arab te xañ na am na lu nit di bëgg am ci alquran bu dégg déggul arab du ko mën a amee noonu loolu taxoon na mag ñooñu fonkoon lool làkku arab bëgg ko bëggin goo xam ne ku gàtt xel defe ne sax dañoo complexe ci araab yi fekk du loolu waaye ñoom li leen ci yitteel rek mooy làkku arab yi te mooy alquran ji nga xam ne ci la wàcc te yàlla moon dañoo wàccee alquran bilisaanin arabiyin mubin kon ku dégg araab loolu dana la ci dimbali ba nga mën a am ci alquran li nga bëgg soxna jaara teel cee yeewu lool teel cee amum jàmbaar teel cee am cir ba yàlla def lool tax na mu mënoon koo jëfe nim ko ware waaye mënoon koo tuxalit yóbbu ko ci keneen ku ko jege ba ngay dund dundeenu alxuraan ba moom ci boppam mujj na ñuy wax ne kaana xuluquha alquran comme nañ ko waxe woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne bi mu faatoo moom soxna jaara bërëb biñ ko denc kilifaam daf ko tiim ni xëexu naa du final furqaam euh, muy fii ñu denc soxna si mën nañ wax ne dañ fay denc alxuraan ndax moom alxuraan la woon di dox ci kaw suuf waaye soxna yi nga xam ne it yàlla def na sëñ bi ci tut tànkam ci zahir mu nekkoon ci seen diggante noonu lañu meloon ci xam-xam ak diine waaye fonk bu baax a baax góor lu jëm ci yàlla mën nañ ci tudd ku mel ni soxna Faati Isa Diop waajuru maam Cerno Ibrahima Faati ku fonkoon sëriñ bi la te teel koo naw teel ko bëgg waaye teel ko jàppale ci la mënoon ca jamono mën nañ wax ne it ku mel ni soxna Isa Diop waajuru sox sëñ Masamba donte fekk na sëñ bi xaw a dëgër ci zahir waaye ñoom ñépp li lay won nit ñu bëgg lu baax lañu woon te ñu ci sonn lañu woon mooy niñ teel a nangu la sëñ bi niñ ko teel a wuyoo waaye niñ ko teel a yaakaare euh, jëme ci moom yitte yu kawe lool yoo xam ne seen Pastef ci sëñ bi yéeme na buñ la waxee ko mel ne soxna Fatou Issa Diop xam nañ ne bi demee ba sëñ bi dem Gabon euh, gëm gum gëm sëñ bi àgg na ci biñ nee sëñ bi dafa wàcc liggéey te loolu di pexee tubaab yi bi ko góor ñi fi nekkoon ñëpp naree gëm te booba nag mag ñëpp ngi fi nag waaye moom mi di jigéen moo leen ne loolu amul ndax sëriñ bi moo ne woon moo may dugal ci xabru te maa ngi nii di dund te sëñ Tuubaa mu wax dana am waaye ku mel ni soxna Isa Jóob bi mu ñëwee ci kër sëñ Mor Anta Sali gëm sëñ bi moo tax mu dem ba ci moom nekku sa kër baay gi kët dama fee ñëw fekk muy mag te bu ma sañoon duma fi sooy bëgg nga ñaanal na sëriñ bi ñaanal ko ne da nga am njaboot te doo jur sax ku ñu yilif maanaam ay kilifa rek ngay am ci la ginnaaw loola la am sëriñ Masamba waaye ginnaaw loola it la sëñ Mor Anta wàcc ci liggéey mu dem ndaam am fa jàmbaaram yim fa am muy euh, doomam yu sant yooyu di sëriñ Modou Lo Issa sëriñ Amsatou Lo sëñ Abdou loo Lo sëriñ Cheikh Lo euh, sëñ Ibra Lo astaghfirullah sëñ Ibrahima Lo dëggal lool la sëñ bi waxoon te loolu booba bi leen sëñ bi di wax yooyu noonu wax mënoon nañ ko jàppe tout tànk waaye seenu xam lu baax ak mën a gis signe yi yàlla di def ci nit ku mu waajal moo leen may lool te loolu ko amul basiira munoo koo am euh, nekki noonu ku mel ni maam Anta Ndiaye Mbàkke lim doon doon mag teewul ku teeloon a xam sëñ bi la ba jël maam Cheikh Anta taf ko ci moom boole koog moom bëgg mu di ko topp toujours ndax xam na ne mbir a ngi ci moom ñoo ñëpp nag dañoo jiitu yoonu murit waaye bi yoon wi sosoo nag ay soxna yu tedd dañoo ànd ak sëñ bi liggéey boobu mu teg leen ci bi yi nga xam ne nit kuy jëm ci yàlla ci ngay tegu njaar ci bii jóge fa jàll ca bee ba àgg njëkkeel leen ci bunt bi nga xam ne kenn mënta am lu baax te njëkkewoo ci muy buntub xam-xam Serigne Touba fonk gi mu fonkoon xam-xam defe naa ne ëmpul kenn moom moo daan wax ne nit mënta jëf-jëf ju baax lu dul dafa jiital xam-xam bu sell ba noppi moo tax daa ñetti tànk yi ku bëgg am li muy wut ci yàlla moom lay doxe bi ci njëkk mooy al ilmu naafi xam-xam bu am njariñ bi ci topp mooy al amalu saalih jëf ju sell ju yiw bi ko ñetteel mooy al adabul mardiyu mooy teggin yu ñu gërëm yoo xam ne mooy tax li ngay jëf jëfin ba di rafet ndax jëf kese rek mën naa am waaye jëf ju rafet la lislaam di taamu euh, bu dee xam-xam Sëriñ Tuubaa dañu daan wax ne xam-xam yépp mënees na ko jàng waaye xam-xam bi baax mooy bi may nit ki ak ragal yàlla al ilmu ma aksaba xasiyatal alim fa man xalaa minha fa jaahilun mulim nee xam-xam dëgg mooy bi fàggul nit ki ragal yàlla koo xam ne sa xam-xam amatuk ragal yàlla nag ku réer nga ku ñuy yedd nga waaye waxoon na ne it inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alamin walaw afnaal funoon ki nga xam ne ragalul borom bindeef yi te mooy yàlla kooku du borom xam-xam doonte fànn gu nekk da cee géeju duñ ko tuddee boroom xam-xam ndax li xam-xam doon jariñ moom la amul waxoon na ni daal ni ñuy jiital xam-xam ci lépp suñ noppee teg ci jëf dafa wax ne fa kullu aamilin bila ilmin yura fa saayuhu misla habain nusira képp koo gis muy jëf te amulu xam-xam na nga xam ne jëfam ya moo pënd bu ñuy tasaare ñooyam waaye wax ne wa man xawaa ilman wa laysa yaamalu bihi fa innahu ximaarun yaxmilu koo xam ne it dangaa am xam-xam ba noppi waaye doo ko jëfe yow it euh, mala bu sëf rek yéena yam kon Euh, Cheikhul Khadim ci xam-xam moom mu gënoon a fonk ci la njëkkee njabootam daan na def soxna yi yàlla baaxe woon yu ñëw ci kër gi bokk ci yaayi murid yi ku fi indaale xam-xam sëriñ bi dana ko dëgëral ci yow dana ko yokk dana la taxaw ba nga jëfe ko waaye ku ko fi indaalewul dana taxaw temm ci nuñ la xamale ba nga mujj nekk boroom xam-xam am na ci ñoom ñoo xam ne bi ñu fiy ñëw dañoo bind ay kaamil dañoo mokkal ñee dañoo wàcc ñee dañoo tàmbali jàng xam-xam mën nañ ci tudd rek ñenn ku ci mel ni kii soxna Aminata Lo almardiya bi muy ñëw ci kër sëriñ Touba soriwul woon ci xam-xam waaye yokke na fi xam-xam ba dañuy wax ne bi muy wàcc liggéey ñaari dars moo ko dese ci risalatu museydin alxeyrawaan te risala téere la boo xam ne ñi jàng xam nañ ne dugu suufe noonu waaw donte am na yu ko tiim waaye moom yim tiim bari na te daanaka ku ko xam sax nag lu bari loo soxla ci sa diine danga koy mën a am soxna si bi muy wàcc liggéey ñaari binde ko tey jeexal risaala bu dee ku mel ni soxna Awa Bousso amoon xam-xam lool ba dañuy wax ne Sëriñ Tuubaa la anhu bi mu tawatee ci zahir bay bind Matlabu Sifaa yi moom la ko doon dicté mu koy bind moom soxna Awa Bousso te loolu bu xamul woon luxa arabiya du ko mën waaye itam ku mel ni ki euh, soxna Faat Tuuti Diop waajuru Cheikh Mouhamadul Mourtada dañuy wax ne bind na juróomi kaamil ci loxoom te nim ko bindee noonu la ko doon jëfee waaye itam noonu la ko doon duruse euh, fu mu toll waaye ku mel ni soxna Mbeeya moom itam nga xam ne rakk la ci soxna Faat Tuuti euh, moom itam dañuy wax ne Serigne Moustapha Lo mi di sëtam xam Serigne Moustapha Lo mu soxna musli nee na ci soxna Mbeeya la jànge alxuraan ba sori ñu koy doogu yóbbu daara muy eggale am jàngam euh, dañu wax ne ku mel ni soxna ma ma Jaxate waajuru sëriñ Abdul Ahad ak sëriñ Sohaybu euh, da daan durus alxuraan ci lépp lu muy def buy liggéey da ko daan durus di ko wayantoo ba mag ñi di wax ne moom de xanaa loolu moo ci doon soxna jaara ndax soxna jaara noonu la daan def lu muy liggéey rek alxuraan lay wayantoo ba dañuy wax ne sëriñ Sohaybu bu sax lool xaj na moom mayu yàlla la lu jéggi baax la waaye dañu wax ne nee na hal ataaka xadiisul xaasiya ci soxna Mariama Jaxate la ko mokkale mu doon ko jàngal ay tuut tànk te moom bi fi soxna Mariama di jóge tuut tànk la lool ba jéggi dayo sori lool sax war a dal jàng waaye nee na mokkale na saar woowu ci moom loolu nag ñaari firee ci ne benn bi mooy mayu yàlla gum tibbu jox ko sëriñ Suhaybu ak jagle waaye bi ci des mooy yaay ju farlu nag ba fu mu toll ma ngay wayantoo alxuraan euh, buñ waxee ku mel ni ki soxna xari daaru silla di waajuru soxna maymunatu suxraa noonu la meloon ci alxuraan soxna xari mbar waajuru sëriñ abdu samad noonu la meloon ci alxuraan xam-xamu diine noonu ñu doon jànge alxuraan noonu lañ ko doon jànge ba jàmbaare ci lool waaye nag bu dee doomi sëriñ ñi nga xam ne ñoom ay njabooti boppam lañu la ko dale ci soxna Faat Ja jaar ci soxna Assu Mbàkke Kajoor jaar ci soxna Ummi Mbàkke ba agsi ci soxna Maymunatu Suura mi jàpp ne mooy tout tànk bi ci mujj ku ci ne alxuraan a doon sa màndarga te alxuraan nag suñ koy tudd ci jataay bu mel nii dañuy wane ne rek xam-xamu diine d'une manière générale moom la ñuy wax ndax ni ñu ko sëriñ Tuubaa jàngale alxuraan mooy matière première ci bépp xam-xam bépp xam-xam bu am njariñ rek alxuraan moo ci jiitu dafa ne kitaabu xayril wara aslul ulumi maan huwal kitaabu alladi man raddahu xurima téeréb ngeen ji mbindeef yi muy alquran mooy cosaanul xam-xam yépp yépp mooy téere bi nga xam ne ku ko delloo bañ caa jëfandiku yàlla xañ la wépp yow kon euh, kër sëriñ bi lu ne lañ fi daan jaaxle ba mu des jigéen juy jàng xam-xam jigéen ju mokkal alquran jigéen juy durus Euh, ci téere euh, diine yi maanaam téere xam-xam yi fi jiitu woon lu mel ni ay azkar lu mel dalaa ilul xayraat ak téere yu na mel waaye itam téere yi nga xam sëñ bi ci boppam moo ko bind di xasaa idam yi yi ci nekk ay azkar dañ ko daan jàng yi ci nekk téere xam-xam dañ ko daan jàng ñoom ñépp nag amu ci xejj ak seen te ni mu doone woon ci njabootu sëñ bi ci boppam noonu la demee it ci njabooti taalibe yi bépp taalibe bu mag bu fi newoon ci sëñ bi rek sëñ bi da daan digal sa njaboot nañ leen jàngal diine nañ ko xam te nañ koy jëfe ndax moom du jaboote koo xam ne day ginnaawal diine noonu la ko lool toppe nag ba ñëw tey ji ci sëtam yi waaw yi nga xam ne ñoo fi nekk ba tey noonu la ñu bëggee diine loolu lañ ci nangoo sonne di tabax ay daara di tabax ay école di jàngale di taxawu njabootu jullit ñu leen leen jox nag ñu di leen yar yar bu mucc ayib di leen taxawu ci anam gu nekk di leen toppatoo ba ñuy génnee ay génération yoo xam ne wax dëgg yàlla ku leen gis xam ne ñu ñu defar lañu ci diine ñu ñu toppatoo lañu ñu ñu euh, waajal lañu ba nga xam ne lépp lu yàlla doon soxla ci jigéeni jullit ba di leen tagg ci alquran rek da ngay fekk njabootu Serigne Touba mu nekk ci ñoom xam nga suñu borom subhanahu ay ayaat yu bari yoo xam ne da cee beral jigéen ñi ay xitaabaat di ci wax ak ñoom ginnaaw boo xamee ne lépp lum wax ci mbooloo rek góor ñeek jigéen ñi ñoo ko bokk lu digle ci mbooloo rek góor ak jigéen a ko bokk waaye ba mu noppee mu beraat jigéen ñi nag yàlla day wax mu salaat wa atu zakaat góor ñeek ak jigéen ñi xam ne ñoo ko bokk waaye yàlla day wax jigéen ñi kese nag wa aqim na solaata wa na zakata wa atina llaaha wa rasulahu loolu liñ ciy dégg muy di leen di feddalil seen santaane ngir ñu xam ne ñoom ku nekk war naa taxawe diine waaye ñoo ci raw ndax lislaam nag ba mu fi ñëwee ba tey jigéen a ko taawu woon moo ko téye woon moo ko taxawu woon moo ci njëkkoon a def yitteem itam mun nga wax ne soxna Xadijatu bintu Xuwaylid moo njëkk dugg ci lislaam mën nga wax ne soxna Sumayatu bintu Xabaat moo njëkk a faatu ci lislaam mën nga wax ne itam ay jigéen daanañ dem ci jihaad di xeex ni góor ñi di xeexe ay jigéen daanañ yore xam mu diine di ko taxawu ko mel ni soxna Aysa ba yonent bi di wax ne jële leen ci moom seen genn wàllu diine eh, soxna ni saybatu bintu Kaab ummu Aymaara xare Uhud da doon défendre yonent bi ba yonent bi di wax ni yéem naa ko ndax gestuuma fenn ci xeex bi ba nim jeexe nday joor mbaa càmmoñ lu dul gis naa ko mu di ma défendre te loolu bariwoon na góor ñu fa ñemewul woon a jege booba waaye itam xam-xam naka jekk ci yoonu lislaam lu ginnaaw bu woote bu njëkk boobu jàllee ci dunduk saxaaba yi saxaabiyaat yi dañ daan ndikkante ci xam-xamu diine waaye di ko jëfe waaye ci taabiina yi it dañ daan góor góor lu ci xam-xamu diine di ko jëfe loolu nag moom lu Sëriñ Tuubaa jël rek indi ko ci njabootam euh, saxal ko ci ba mu nekk ci ñoom nàmpatal leen ci ba xamuñu lu dul diine xamuñu lu dul itam taxawu xam-xamu diine ba fim mu ne nii loolu yaatu na lool defe naa ne dëkk bépp bu Sëriñ Tuubaa moom wala mu am fa cër mbaa ab taalibeem sanc ko wala doomam da ngay fekk ne xam-xam moom lu nekk fay ñàkk ba mu des moom fii ci Tuubaa nag dafa rawati Tuubaa moom li fi nekk ci ay daaray alxuraan yu jigéen ñi di taxaw li fi nekk ci ay école xam-xam yu jigéen ñi di taxawu li fi nekk ci ay xalqatil majalis jigéen ñi di fa jàngale kenn xamul nu mu toll li fi nekk ci ay dongo yu jigéen tamit lim bi bari na lool lool ba jéggi dayo ñuy mokkal alquran di ko tari ana al wa atrafa nahar waaye itam di ko jëfe nag ndigale alquran yépp ñu taxaw teem ci di ko def waaye tere alquran yépp ñu di ko bàyyi ndax loolu lañ xam ci lañ leen yar moo am ci yoonu sëriñ bi moom lañ masaa nàmputaloo ba xëy euh, nekk ni nekk euh, kon nag euh, loolu defe naa du du gan ci kër sëñ bi waaye itam du ci xarwa mooy du fi kéemtaan xaj na feneen lay doone kéemtaan waaye fii ci kër Cheikh Khadim moom jëfe xam-xam ak taxawu ko du fi kéemtaan ndax loolu rek lañ mas di nàmptaloo moom rek lañ mas di yaroo ñu fi daan yar ci la ñuy yare xam ngeen ni soxna may mënutu kubra mi nga xam ne ñu bari xisaam boobu la ñuy dégg ci alxuraanam ja ak cereem ja ba di ko naw ba noppee ca loolee lépp teewul Cheikhul Khadim dafa ne ko nañ yóbbu ci soxna Faati Ja mu jàngale ak taalibe te jàngale ak taalibe mooy mu yar la yaru diine rek ndax Serigne Touba moom musta ber dara di ko woote li mu woote lépp mooy yeesalaat lislaam yëkkatiwaat ko leeralaat ko ba ñi ko gisul woon gis ko ñi ko gisoon gën ko xoole bët bu gën a leer biñ ko doon xoole moo tax moom ci boppam day wax ne buñ ko jàppe lenn lu dul liggéeykatu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man zanna ni gayra xadimil mustafa fa innani axdimuhu bi mustafa ku ma fooge leneen lu dul liggéeykatu yonent bi Muhammad du loola waaye man liggéeykatu yonent bi laa cennam ko tànne nag laa koy liggéeyale axdimuhu ila duxulil janna daaril qaraari wal muna wal minna dama koy liggéeyal ba ba may dugg àjjana àjjana mi këru sax gi di këru xéewal di këru ay may waaye itam da dégg muy wax ca tàmbaleem ca munawiru sudur nga xam ne ci téere yu njëkk ya la yaa saa ili an ay yi diinin yustafa indal ilaahi haaka diinal mustafa yow mi may laaj jan diine la ñuy tànn fa yàlla maa ngi lay jox diiney muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne moom lañu ñu tànn te loolu alquran a ko wax moo waxal boppam ne inna diina indallahi l islaam waaw waxaan ne wa man yabtaghi ghayra l islaami diinan falan yuqbala minhu wa fi l axirati min kon Sëriñ Tuubaa daal euh, lu amoon ci lislaam ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lu baax am na ci këram gi waaye li yonent bi beroon jigéen ñi di leen beral ay xalqaat di leen jàngal di ber ay jataay yoo xam da leen ci daan leeralal seen diine eh, Sëriñ Tuubaa noonu la ko daan defale njabootam ba ci biir këram dafi daan am ay géew yoo xam ne da leen doon jàngal xasaay ji te li ko waral mooy bëgg nañuy taqal seen làmmiñ ci tudd yàlla di ko sant di ko jégglu di ko sàbbaal di ko eh, defal lépp li nga xam ne mooy tax nit nekk ab zikkarkat moom ci boppam moo daan géwal jigéen ñi di leen ko jàngal ñu di ko yëkkati ci seen biir te du leen génn soxna ma Jaxate bokk na ci ñi daan jiite kuréel yooyu noonu ñu daan ko yëkkati te eh, mu yem ci seen diggante ñoom donc ngir sàmmonte yar bi lislaam digle ci jigéen ak yëkkati kàddoom ci lu nuru woy walla lu koy lu koy jege Euh, loolu li mu ci jublu woon rek mooy ñu xam ne buñ boolee ñépp ndigal góor ak jigéen bokk ko ba noppi alxuraan ci boppam dafa beralaat jigéen euh, da nga gis taw jiix bu yàlla di wax sayyidatuna Maryam al Ansra yaay yonent yàlla Isa di nga ci jànge ne jigéen yàlla daf ko beral loxo te xamal ko mooy kan bëgg mu xam boppam ba mën a taxawe li mu war a taxawe yàlla daf koy wax ne ko yaa Maryam inna laaha stafaaki wa taharaki wastafaaki ala nisaa il alamin yow mariyam yàlla def laa tànn laabal la tànn la ci mbooleem jigéeni àddina yi loolu du Mariam kese la concerné waaye bépp jigéen lu tax ñu ne yàlla daf koy tànn mu mel ni kon moo gën góor waa ndax moo war a waajal góor waajal it jigéen kooku moom la yàlla préparé pour jël doom aadama jaarale ko ci moom te bu ñëwee ci kaw suuf mu njëkk a nekk ak moom diir bu yàgg di doog a tàqalikook moom di dem ci yeneen loxo foofu bu fekkul muy ku ñu beraloon loxo ci ab yaram beral ko loxo ci xam-xam beral ko loxo ci waajtaay kooku mënta waajalaat keneen ba muy mel ni war a mel eh, dafa góor gu xoromu day wax lu mel noonu mu ne mbaa li ñuy wax ni jigéen matul imaam du leen metti ma ne ko ah déedéet ndax ñun yàllaa ko dogale noonu te yàlla lu mu dogal neex nañu mu ne du lool doomu sax waaye dafa di moom dafa tëluta doon imaam ndax daa war a waajal imaam te koy waajal mënoo doon moom euh, loolu waxiin la woo xam ne rek mooy jigéen dafa war a xam boppam toujours di bàyyi xel ne génération yi di ñëw ëllëg ni ñuy mel rek ci jigéenu tey niñ meloon lay jóge moo tax woykatu arab bu xereñ waxiin dafay laaj joxe laaj boo xam ne ñëpp xam tontu bi waxal yurjaali atfaalin kamalun bisaar tadaawu sudde yenn naaqisaati ndax mën nañoo yaakaar ay ndaw yoo xam ne ëllëg dana ñu mat su dee woyen yiñ nàmpe tey dafa manqué woon tontu bi ñëpp xam ne ñu mooy déedéet yaay bu jubul yaruñu ko yaru diine xamaluñ ko boppam xamal ko diineem njaboot yami am mën naa am duñ mel nañ bëgg Cheikhul Khadim mi ñuy waxtaane soxna jaara waajuru mu jigéen daf leen teel a yar tàggat leen di leen xamal dundiinu gaa yu baax ya fi nekkoon moo tax nga dégg Cheikh Mouhamadul Basir di wax ne yaay ja daan na wax ne leen bokk na ci tam-tami gaa yu baax ya day di taxaw guddi di naafila la na sëriñ bi ba mu déggee loola rek la tàmbalee jóg guddi di taxaw ca ëtt ba ngir jéem a la donte xamagul nuñ koy defee sax waaye itam njabootam ga ca des ña ñeneen ñam boole woon ak moom di yar noonee lañ yaroo sëriñ bi day kéemaan rek yàlla da ko jox loo xam ne moom kéemaanub yàlla la waaye ñeneen ñañ ko yarandool ñëpp yar boobee tax na ñu gën képp kuñ jaarale wut ca yar bu mel noonu euh, njabootam gii ma tudd seen doom yi sell yi ñu am muy doomi seexu xadim yi lu tax ñu wuuteeg nit ñi seen ndey yi ñoo nit ñu bari seen waajur yi leen waajal dañoo nekk ñu ñu waajal ci diine Sëriñ Tuubaa daan tànn njabootam ci këri diine yu sell yi këri xam-xam yi moo tax njaboot gi ñu amaat itam nekk ñu mel noonu ndax kat am bokk yu baax dafa am solo ci doom sëriñ bay jaxate doon na ko wax Cheikh Abdoulaye Ahad ne ko fëxal te raw am nga ab yóbbal fëx ak raw a des ngir baaxi bokk di ab yóbbal nay tëji sar wax ko ne rek boo góorgóorloo da nga mën a am lépp lu baax ndax am nga laltaay mooy am nga mbokk yu baax te mbokk yu baax yépp nag yi ci gën mooy ndey ju baax ndey ju baax moom mooy laltaay bi nga xam ne ku ko xës am mën nañ wax ne gañe nga sa quatre 80 pour cent ci sa yar ak sa baax vingt pour cent yi ci des nag góorgóorlu la laaj ak def yitte soo ko defee yàlla mën na la ko mott ah ku ko deful nag ah, lële dana fa des nit ñi di la ko fonke di la ko war maale waaye li la manqué ñëwul te loolu day yàq lu bari Cheikh Mouhamad Lamine Bara ni Cheikh Khadim nit da ko laajoon ne ko ah, dama la doon laaj ba xam ñaan gu wàlliyu ak liggéeyum ndey lu ci gën ci doom mu ne ko ko Mm, wala ku ndeyam liggéeyul du dajeeg wàll yu bam di ko ñaana te loolu lu wér la mooy liggéeyub ndey daal mooy fondation ci doom su ko doom xasee gañe lu mu ci dolli rek day daal di mën a dem kon doon na loolu nga xam ne moom la ñu fi Serigne Touba doon sàmmal ba nëgëni ba fi ne mu des fi ñu ko yore ñeneen ñi ci nekk nañ ci góor góor lu ñu man waaye ñi nga xam ne nekkuñu ci nag nañ xam ne mooy seen cir te ñu fëx wuti ko te xam ne ci lañ war a nekk. donte nag ñu bari ñu bari ci njabootu sëñ bi moom ñi ngi ci muy diggante jàngale ak yare diggante jàngale ak yare defar nit ndax bépp usine day produire bépp produit boo xam ne nit ñi mën nañ koo jariñoo ñu koy rafetlu waaye usine bi produire nit nag kooku moom mënta yam ak yeneen usines yi ci des ndax ñeneen ñi dañ fee nekk pour liggéeyal ko moom mu nekk fi pour defar kiy jariñoo li ñuy liggéey kon kooku moo war a nekk gën a kawe ñépp ci àddina te ñépp it war koo jox cër bu toll noonu jox ko cër bi mooy ki am tu tànk bu jigéen na ko defar na ko yar na ko taxaw moom bu màggee daal di mën a jël liggéey boobu moom it def ko ci yeneen génération yu yuy ñëw euh, xam naa dafa mel daanaka rek loolu moo ëppoon solo ci luñ bëggoon indi dañ doon moytu rek euh, détail bu ëpp bi ndax temps bi duñu ko may waaye buñ toogoon fii ba suba yi di wax ci Serigne Touba ak ni mu defal jigéen duñ fi jóg da daan jël ay wasaaya di ko bind di ko jox ay soxna euh, am na ay lettres yoo xam ne boo demee ci majmuwa boobu ñu dajale woon da nga fekk lettres yu muy bind di ko adressé ay jigéen directement am na lettre bu boo xam ne da ngay gis mu ne ilal muridati saadiqati euh, wal uxti saalihati daal di koy jox soxna su baax soo xam ne da doon laaj ndigal ci moom waaye ku mel ni soxna Penda Diop nga xam ne wasiyaam bi ñëpp dégg nañ ko mu wax ko ci tàmbali bi rek ñaari baytu yu njëkk yi rek dénk na ko ci dénkaan yoo xam ne ku ko mokkal te jëfe ko yowee gën képp ku ko def ne ko alayki bi sabri wa taqwa rabbiki si sirri wal jahri fa yaxfira laki maa ngi lay dénk muñ ak ragal sa boroom ci lu nëbb ak lu feeñ kon yàlla dina la jéggal daal di ko ci tegal duumi ala tawbati bittihaadi wala tamili li si warasaadi na nga sax ci tuubal yàlla te boole ci ak farlu te farlu mooy maye lépp nit lépp lu mën a bëgg ci àddina bu farluwut du ci jot wala bu dee dañ koo tib bu may ko ko sax bu farluwut dana ko ñàkk kon farlu moom mënta ñàkk mu ne ko na sax ci tuub aku farlu waaye bu jeng jëm ci dara lu dul ak njub daal di koy wax ne duumi alal xumuuli wa tasatturi wal taxfidi sawtaki dëhran tuskari wala taskuri na nga sax ci di giim di nëbbu am sutura yiw jigéen dafa yiw di soloo nu jot di waxee nu yiw di doxe nu yiw ni ko alxuraan jàngale alxuraan yu yëpp da koo beral jigéen kàddoom nu suufe wala tax daan bi xawul bu leen di jàpp seen baat yi di ci charme ñi koy dégg fayatma allazi fi qalbihi marad kon day jur ki nga xam ne moom xolam dafa feebar mën na cee dégg lu tax mu xemmem ko waaye da dégg mu ne wala yadr wala yadribna bi arjulihinna li yon la ma maa yux fii na min zinatihinna jigéen ñi bu ñu dox bu ñuy dóor seeni tànk bu baax a baax ñuy xam li ñuy nëbbu ci seeni taar da nga dégg mu wax itam ne euh, bu ñuy xool nañu lamsal seeni bët qul lil muminaati yaxdudna min absarihinna wa yaxfadna furujahunna yi ma tudd yëpp boo ko boolee ak yi nga xam ne jotuñu ko tudd danga ci fekk sëñ bi tudd tënk na ko ci baatu duumi alal xumuli wa tasatturi saxal ci giim giim mooy jigéen du bari lu fés fés jigéen du bari tépp tépp jigéen du bari rajax rajax dafay dal day xool ci suuf mag ñi dañ daan wax ne jigéen ju juñ daan yar ci murit gi bu njëkk mag ña daan leen yar ba ci jamonoy soxnaa su gaawaan mi dañ daan wax ni jigéen buy dox bëtam wërta dem lu ëpp meetar diggam ak tànkam ñun nag léegi bu ñu dox ca kaw la ñuy téen di sànni suñuy tànk di rajax rajaxi te loolu Serigne Touba moom këram dañ ko fi daan tere kenn daaw fi yare noonu te loolu dafa am solo mu daal di ko ci tegal sa wa tasature sutur suturluwu mooy del sol lu jot loolu gone tey war nañ ko dégg di sol col gi lislaam bëgg ci yow lépp lu war a muure ci yow muure waaye tegal ko ca wal tax fidi sawtaki del wàccee sa baat muy suufee soo defee loolu diirub jamono yow da ngay sant yàlla wala boog yow des lay sant noo ko ci waxee rek bayt bi day baax boo ne tashkuri mu baax boo ne tushkari mu baax euh, noonu la ko jàngale ba ci bu demee ba dem kër ndax lii ma wax tout tànk bi jigéen bi lañ koy jàngal di ko ko yare waaye sëñ bi ci biir wasiya bi li muy gàtt gàtt gàtt wax na ko ci ne boo demee ba dem kër itam sax sa borom kër na ngay nekkee ak moom waaw dafa ne ko euh, na nga xam ne jihaadi jigéen mu ngi ci topp borom këram waaw na nga mi ngi ci topp boroom këram te it borom kër bi it ku ñuy sartal lay doon mooy boroom kër bi nga xam ne buy digle da koy teg ci li yàlla bëgg buy tere mu teg ko ci la yàlla bañ waaw dafa ni ko wal taalami anna jihaada niswati fi taati azwaaji duna miriyati waaw daa waaye nee na ko it wala tarumi taatallaahi bila taati zawjiki taqi dil ula borom kër bi ragal yàlla kooku lañ wax ne munoo am topp yàlla gu la amal njëriñ lu dul danga koo topp moom bu ko defee nit ki day jaamu yàlla déggal borom këram su fekkee ne borom kër bi li mu koy def loo dafa dëppoog li yàlla bëgg waaye itam li mu koy tere dafa juyoog li yàlla bëgg ndax su fekkee ne loola amut kenn digalu ko mu topp ko ci lu yàlla di tere yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam newoon na la taa'ata li maxluqin fi ma'siyatil xaaliq kenn du topp mbindeef ci loo xam ne ak mooy yàlla lay doon kon bi muy jeexal waay wi nag mu tënk ko ci benn baytu boo xam ne mooy lépp ixlaas mooy lépp looy def moo xam dangay ngay maye da ngay wax da ngay yónnee da ngay def lu mu mën a doon bul ko xeeb jigéen ji buy togg buy fóot buy waxtaan buy joxe café lu muy def na ko def ngir yàlla ngir yàlla ndax jigéen ñu bari foofu dañ fi am problème dañuy defee ne borom kër bii moo lay fay li ngay jëf ba tax su la su soo amee mbégte ci moom rafetal jëf ji boo ko meree ñaawal jëf ji loolu njuumte la da ngay yëg ne li ngay def nii mu jëm ci moom moom taxul nga koy def yàlla moo la ko def loo mu ngi mel ni nga doon julli julli loo ci jàkka ji ngay jullee waaye jàkka ji moomut julli gi yow yaa ko moom te yàlla mi ko def loo moo la koy fay eh, noonu la demee tamit borom kër bi ci moom la la yàlla liggéeyloo waaye bu fay jotee yàlla moo lay fay moo tax lu la boroom kër bi yéene yéene ak fay ëllëg mënu laa jox loo liggéeyut waaye lu mu la iñaane woon iñaane ak fayit mënulaa xañ li nga liggéeyoon moo tax sëñ bi wax soxna pend ci baytu bu mujj bi ne ko wal taalami bi na kullama sadar li gayri wajhi dil jalaali fa hadar na nga xam ne lépp lu génne ci yow ci jëf te defoo ko ngir jëmmi yàlla loolu yàqu na sànku waaw lu mu neex neex nit ki nga koy defal bu dee yéenewoo ci def ko ngir yàlla te yàlla taxul nga di ko def su boobaa loolu màbb na kon jigéen su xamee loolu dana fexe ba du def ngir nit ki wala muy bàyyi ngir nit ki ndax nit day bëgg di mer nit day day day baax tey ëllëg mu def loo mën a tudde neneen nu dul baax te bu boobaa kon da koy topp ci situation yi muy nekke ba circonstance bu ñëw rek nga jël say jëf méngale kook loola te kon bu boobaa ci dëkk ci jaxase baax ak bon ngay dëkk te jaxase baax ak bon Seexul ne woon nañu mu ngi mel ni nga am sa gunu lu baax lu rafet defar ko ba mu tëjee nga daal dem wut say ginaar yu baax fat fa ba noppi nag dem ci àll bi rëbbi ay siiru dikk dugal ci su boobaa boo yeewoo ragal naa lool ne ay donq ki siiru nga fay fekk waaye dootoo fa fekk ay ginaar kon ñu moytu it di def lu baax ba pare ëllëg ñu mer yàq ko ci wax mbaa ci leneen loolu it baaxut te Sëriñ Tuubaa ku daan yar njabootam lañu ci ñu bañ a def lu mel noonu moo waraloon dénkaaneem yooyu muy bind moo waraloon itam lettre yi mu daan joxe moo waraloon laaj yi ñu ko daan laaj mu di leen ci tontu ngir bëgg rek ñu ànd tege ci yoon eh, ñoom it ñu téye woon loola bu baax nag gëmoon ko te jëfe woon ko ni ko sëñ bi bëgge woon ba tax ñu am ci résultat yu yiñ ci am jural suñu mag ñu baax ñi nga xam ne ba tey ñooy wéy di nekk suñu ay royukaay ñun nit ñu war a roy kon ci seen waajur jigéen yi ak seen soxna yañ dëkkaloo loolu mën nañoo may texeg tey te mën nañoo may itam texeg ëllëg xam naa dañuy daal di tënk foofu rek suñu kàddu di nuyu di bu baax euh, borom kër gi nga xam ne moo di Serigne Abdou Samad Mbacke nu Cheikh bu Mbacke di ko ñaanal rek su boroom gën koo dëgëral ku am yéene ci yaatal wootab Cheikh Khadim ak leeral ko ba nit ñi xam ko dégg ko te mën koo jëfe ndax damay wax ne képp ku jamonoon teeg Serigne Touba wala mbindam mi ndax bu ma nee mbindam mi. mooy jëmm ji fekku la fi waaye lim fi bàyyi mi ngi fi mbindam mi ak mag ñim yaroon ku jamonoon teeg moom te tegewoo ci njub rek dafa fekk déggoo ko waaye boo ko déggee loo mën ci jub danga ko def ndax moom jub rek ci la doon woote ñu sant ñëpp di leen gërëm di jaajëfal tamit euh, sëñ caméraman ñoom mm-hmm. di leen jégglu itam ci waxtaan wi bu fekkee am na ci dara lu demewul niñ ko doon séentoo liñ ci bëggoon rek mooy mu baax su matee suñ borom subhanahu wa taala lañ koy sante bu amee dara lu ci mata di jégglu ko yàlla di leen ko jégglu yéen ñi koy seetaan waaxiru daawaana alhamdulillah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.